jëf mbokk si di internet yi Info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi nag dañ koy dooree ki nga xam moo di Cheikh Amar Diagne professeur Cheikh Amar Diagne moom kàddu yi nga xam si nag këtti na ko démb fële nga xam si nag moo di conférence presse bi nga xam si nag du na ko amal moom li nga xam moo di Cheikh Amar Diagne ci noonu woote na li nga xam moo di ab rassemblement bu mag a mag fële nga xam moom moo ca palage de la nation moom li moo di Cheikh Amar Diagne mu nekk na rassemblement boo xam si ñu ngi xaar li nga xam moom moo di sénégalais yëpp mais nag li ñuy gën a yéeme rek mooy li nga xamante ne si nag instant yi mooy actualité bi nga xam Cheikh Oumar Diagne ak ni ñu ko jàppee wax ci ki nga moo di Bassirou Diomaye Faye ni muy dundee ak moom ci fi nga xam moo di prison bi ginaa ñoo bokk fu nekk mu seede nag ay kàddu yu rafet rafet ci ki nga xamante nag moom moo di Bassirou Diomaye Faye ndax xam ngeen ne bu baax a baax